tumma qiyaamullaahi topp taxawu yàlla mbaa nga ne doylug yàlla jàlla màgg na waxalaate mu kawe bi nafsihi ci boppam burhaanuhu layam wa xadin jëlaa feeñ na te mooy law annahoo doonte naka moom xadd kaana nekkoon na muxtaajan di aji aajowoo ilaa shay in jëm ci dara minal maxal li ci jëmm jàlla màgg na waxalaate mu kawe la kaana kon mu nekk jàlla màgg na sifatan di aw melo wala takkoonu te du nekk daata tisaafin di boroom ak melowoo bil mahaani ci almahaani idd taboonu ba dana bir wala bi maanawiyatin du jaageenu ci maanawiya wataani te yile yaar lëxoo ñeel nañu yàlla kon nag fa lay sa doo shaani déet boroom mbiruma sifatan mu di aw melo doo shaani mooy cosaan ba tey boo xoolee li ëpp ci yax yi dañuy bind wala yakkoonu daata tisaafin bil mahaani idd tabiin dañoo fartaamu rek jàng wala takkoonu mu nëbb xiya mu dellu ci sifatan nga xam ne idd tabiinu ba tey xiya ba ca nekk day dellu ca sifatan dafa jàll si ci ni ñuy layale doolu gi yàlla doolu ci boppam lii dëgëral ne yàlla dafa doolu ci boppam sëkk-sëkk mooy da ngay wax ne bu fekkoon ne nekkul ku doolu ci boppam sëkk-sëkk benn nga ne dafa nekk xarab maanaam di aw melo woo xam ne faaw day fekk jëmm rekk mu taq ca te kon da nga waxoon ne yàlla kat dafa melowoo almahaani ak almaanawiya day daal di deñ almahaani bul fàtte ne mooy alqudratu al iraadatu al ilmu al xayaatu al zamu al basaru al kalaamu maanaam ya mooy yàlla doon alqaadiru almuridu alaalimu alxayu alsamihu albasiru almutakallim bu fekkoon ne yàlla da di xarab di aw melo woo xam ne mën di taxaw boppam sax faaw day fekk jëm rek mu taq ca kon ci dëgg-dëgg du melowoo maxaaneeg maanawiya te li wóor moom mooy maxaaneeg maanawiya moo leen jagoo faaw rek melow mat lañu mën leen a ñàkk melowoo wa annahu ak naka moom lawkaana doonte nekkoon na muxtaajan di aji aajowoo ilaa muxassisin jëm ci aji amal lakaana kon mu nekk xaadisan di aji sosu jalaa joj feeñ na te kayfa naka la lool di mën a amee waqad sabatate saxoon na burhaanun aw lay xalaa qidamihi ca jiitoom nga baqaa yi ak desam nga fiimaa ca la nga xam ne xalaa wéyoon na yàlla ñàkk doole ci boppam boo ko tuddee rek benn nga ne yàlla day xarad te wax nga léegi loolu na nga koy layale nga tekki ne mbaa boog kon muy jërmu maanaam nekk jëmm ju ne léng ndax xarad ak jëmm ju ne léng mu jërmu foo leen fekk rek mbindeef lañ dañoo sosu faaw rek du mu doolu ci seen bopp kon nag boo ne woon yàlla dafa nekk jëmm ju ne léng li mu tekki mooy dafa sosu te faaw mu aajowoo ku ko sos ndax mbindeef mu ne ñekkul ku ko sos te faaw mu aajowoo jëm ci kookee ko sos du mën a wéeg boppam mu ne nag seetal ne waxoon nga bu leer a leer layan nga bu dëgër a dëgër ne yàlla dalewul fenn te du yam fenn kon nag du mbindeef ndax mbindeef moom faw day dale fenn yam fenn kon ci dëgg-dëgg yàlla dafa doylu ci boppam nekkul xarad nekkul jirmu maanaam du melawu mënti taxaw boppam fekk jëm mu cay taq du itam jëmm ju ne léng ndax lu mu ci doonoon rek daldi nekk ku sosu te ku sosu moom foo ko fekk rek du mën a wéeg boppam wujjoobu waxdaaniyati latifi warut doon bennut aji ñëwante ji waxdaaniya mooy bi firi ak wéet burhaanuhu layam wa almaxkii wadi wañu nettali an sharif jële ca sharif ba a sharif day firi aji tedd waaye dañ ci jublu surtout yonante law annahu donte na ko moom lam yokku nekkut waaxidan di kenn lazima kon war min sàmm ci foofee kawnu kulli waaxidin nekkut len lu ne xaadaman dig ñàkk li xajj si yii ngirug rotom xiina isin ci waxtu woowee mu jóoban ci lu war minat tamaano yi ngir tereen tega fukku nekkal adiiban di aji xam dafa jàll si ci layal ne yàlla kenn kepp la mu ne bu nekkutoon kenn dara du am ndax kon bu dee ñaar mbaa ñett seenu jàppante ak seenu xëccoo day tax lépp lépp yàqu dara du sotti boo gisee nag ni mbindeef yi demee ak ni lépp lépp tegoo cib nos bu cib xocc moo la xamal ne kenn rekk moo koy doxal ni mu ko waxee ci alquran asamaan ak suuf bu fi ay yàlla nekkoon lépp a yàqu mooy law kaana fihima alihatun illa allahu la fasadataa kon mbir yi ni muy doxee tegu ci benn nos dara du rëcc dara du pëccet wane ne ne benn yàlla rekk moo am te itam boo nattale woon ne ñaari yàllaa ngi nii ñoom ñëpp day buñ bokkee amee melo yi yàlla war a amee xanaa duñ mën a bokk ak bëgg aku bañ saa yu nekk bu ñu safaanoo nag kii ne lii day am ki ci des ne déedéet loolu du am ñoom ñaar ñëpp buñ bokkee kenn mënu caa wéyal ay waxam ñu xam ne kon kenn du ci yàlla bu ca kenn ka mënee wéyal ay waxam ka ci des mënta wéyal la wax kon ka nga xam ne la wax moo am kookaay yàlla ka ca des du yàlla su matti saa fufoo topp melo woom nga bi ilmin ci ilmu wa xayaatin ak xayaatu wa qudratin ak qudra iraadat ak iraada min ji sifaati ci ilay melo burhaanu ho layam ba mooy lawuñ tafaa doonte dàq woon na shay um dara lama wajida kon deful fekk shay um dara min waraa rabbi sama ci mbindee fi borom asamaan wax dina wax ne yàlla melowoo na xam ak man ak sañ ak dund yent melo yi mënuñoo ñàkk dañ ko xamee mooy bu fekkoon ne melowootoon yent yi kon dara du am melowoo gu melowoo yent yi moo tax mu mën a amal li am te bu fekkoon ne melowoo ko woon kon du mën a amal dara dara te kon dara du am képp kuñ ne yaa amal yaa sàkk faaw nga amee xam-xam amee man-man amee sañ-sañ amee dund yent yi nag bu ko ñàkkoon kon du mën a amal dara te bu amootoon dara dara du am wa joobu samhim waruk samhu basarin ak basar kalaamin ak kalaam burhaanuhoo layam wa arbaxatu aqsaami ñeenti xaaj la te kitaabuhoo mooy téeréem bi wa sunnatul muxtaari ak sunas kañu tànn sàllaa yàlla na dool tedd nga ba sàllamati doole wóolu xaale yi ci moom albaar yi aji bind ji wax gi wax ne yàlla amee nag dégg amee na gis amee nag mën a wax moom nee na boo koy layal da nga koy def ñeenti tomb ngay wax ne alquran mooy benn tomb ba ñaareelu ba mooy aji si yonante bi sallallahu alayhi wa sallam wa kaana allahu samihan basiran ak wa kallama allahu muusa takliman xorab alquran wax na ba tàyyi nu yàlla amee dégg gis ak wax suna itam noonu muy addi seenante bi daal di waa ak ñetteel seen al ijmaahu mooy dajeg fóoriya mu ne ñetteel ba nag mooy boroom xam-xam yépp maase nañ ci loolu ne yàlla amee na sàmm ak basal ak kalaam war raajoxu ñeenteel bi maa mooy la nga xam ne xaala wax na ko as sanoosi sanoosi yu imaamul xolamaa yi kay njiitu way xam ña ñeenteel bi nag nee na mooy li al imaamu sanoosi wax dane woon law lam yakun doonte nekkutoon muttasifan di aji melowoo bi xaa ci yetti melo yooyu lesima kon war kaw nutti saa fii nekkut melowom nga xolima dee fi ko xam bi àbb daadin ci ay safaan waxee te ñoom safaan yooyee naqaa isu ay manqué lañu wa naqsunti ak manqué xasalagoog am na mu xaalum lu bombal la xalaa ilaahi naa ci suñu buur musjalan ak lu mën di doon sano si dane yetti melo yi muy am ak dégg am ak gis am ak mën a wax su ko yàlla melowootoon kon day melowoo seeni safaan xam nga seeni safaan ak manqué la ndax ñàkk dégg moom taxa fa sës ñàkk gis gumbaa fa sës ñàkk mën a wax muumoo fa sës kon nag nee na yetti melo yi moom melay mat lañ ci yàlla su ko yàlla melowootoon faaw rek mu melowoo seeni safaan te seeni safaan ak manqué la te ak manqué jomb na ci sunu borom burhaanu kawni fi'li kulli mumkinaatin layu nekkuk defuk mépp mbindeef wala nga mboolem mbindeef wa tarki akuk bàyyeem min jaisaatin di bokk ci way dagan fi xaq yi ci àqam moom yàlla mooy rekk law aw jaba doonte waraloon na alxaq yu xel assaliimu mu di aju mucc aw axaal wala mu jombal xale yi ci moom aye shay in lu mu ci dara min xaa ci ñoom fil misaali ci misaal lakaana kon nekk moom ki mu mbindeef mu xaalan di luñ jombal yaxsulu loolu dana am aw waajiban wala muy aji war wa daakate loolu lay sa yuwanqalu defu ko xellu li ngay xamee ne yàlla kenn waral ci moom ne faaw mu def nangam mbaa nangam sañu koo def loolu mooy soo doon mbindeef nekkut jaayis nga daal di wax ne kon bu nekkul jaayis moom mënta ñàkk nekk waajib mbaa mustaxil léegi moom nekkul jaayis rek faaw nga ne kon daa nekk waajib mu mënta ñàkk te bi ñu mbindeef ne nga woon ñaari xaaj la am na ci lu mën a am te am am na ci lu mën a am te amut loolu na mooy wane ne kon du waajib ndax bu doon waajib lu mënta ñàkk kon faaw rek day am te du mën a ñàkk waaye waaye am na ay mbindeef yoo xam ne xel nangu na seenu am te amuñu te weesu nañ ko ci gannaaw mun laa wax itam ne daa nekk lu jomb ndax lu jomb nee nga woon mooy lu mënta am te gis nga mbindeef yi ni ñu baree ñun ñi toog ñi ay mbindeef lanu te da nga ne woon lu jomb mooy lu mënta am kon nag li wóoru moom mooy mumkin mooy lépp lu mën a am rek dañ koy bàyyi ci coobare yàlla bu ko soobee amal bu ko soobee ñàkkal waaye kenn mënta wax ne weesu na jaayis ndax bu ko weesoo mënta nekk lu may waajib ba mustahil te mënoo wax ni waajib la ndax am na lu mën a am te amut mënoo wax ni mustahil la ndax yi am ci mbindeef yi daa bari kon nag lay wóoru nga wone ne mbindeef moom jaayis rek la wana fii nag intaha la jeexe xaddul baraahini limit lay yi maxan boole seen xasarata mbir mu ñuy fukk man xoolat mbir yuñ toxal xamante la ci ka nga xam ne waxaa wattu na lay yi nag nee na foofu la yam boo dee wàññi nag nu mu toll fukk lañ ñoom ñëpp fa nafsiyatun nafsiyatun xawat làq na alifan benn min xaa ci ñoom melo wu tudd al wujoodu te mooy an nafsiyatu am na ci benn lay wali dawaati sal bi ñeel na waroom rekki ga waawuñ juróom benn xadd sabata ba sax na dawaatu sal bi juróom lañ alxidam albaqa almuxaalafa alxiyaaw bi nafsi alwaxdaaniya juróom yooyu la juróom lañ waaye teewul am nañ juróom benn lay nga ne ko waaw loolu tax ñoom ñu juróom mën a am juróom benn lay mu ne la xillatuhoo sababam lay ak tarkiibu moo di toggalee ga min gis ay nit ñaari xaaj xiyaamaxoo doyloom nga bin nafsi ci jëmmi boppam man nga ne xiyaamaxoo taxawam nga bin nafsi duuna mayin ci lul fen li ko war a damay da ci am kenn koo xam ne ba nga ci tolloo danga ko waxal yaari lay te mooy alxiyaama bin nafs ndax da nga ne woon ñàkk doolu ci boppam man nga koo nattale ci mu nekk xarab bi aw melowu tax ci jëmm nga daal di koy layal loolu bëti ko ne mën nga koo nattale muy jëmm ju ne léegi daal di koy layal xam ne foofu yaari lay fa amoon da ngay wax alxiyaam bi nafsi kon nag moo tax dawaatu sal bi ñuy juróom ba noppi am juróom benn lay ba joxi la defeef na baa uñ ñaar lil maxaan yi ñeel maxaan yi wala lawaasin ak lawaasin yete mooy almanawiya min ajli mujibin ngir aji waral xoqi la jot xelloof na ko fii ci ñoom soo boolee almaani ak almaanawiya daañu mat fukk ak ñeent waaye yaari lay rekk lañ leen boole te lee ko waral iddi ngir ak zamo waral nañu mbaa taqale nañu fii dalilin ci aw lay waaxit nu ko benn xaa an juróom-ñett min ittihaadi maa ngir bennoog la nga xam ne yel sama dana war aleexa ci ñoom juróom-ñett ñi waxee ñoom nag qudratun mooy qudratun bi firi kàttan iraadatun ak iraadatun na meel kasaaniki ni ilmun xam xayaatun ak dund waxu doon jàppal al lawaasima lawaasim ya lawaasim yi mooy alma anawiya juróom-ñett yi dañ leen a boole wenn lay ndax ñoo bokk lu ñuy tegtale ndax dañuy wane ne bu yàlla melowatoon kàttan ak coobare ak xam-xam ak dund kon du mën a amal dara te kon dara du am loolu moo doon lay wax qudra iraada xel mu xayaatu nag ku ne nga génne maana yi ba jàkkaarloog moom muy qaadir muriid xaalim xayu ñoo bokk wenn lay woowu wa jamaxa boole na baaqiyatan way des min xaa ci ñoom maaneeg maanawiya al imaamu ilimaan ba al muttabaw ba di bañ topp fii dalilin ci aw lay waaxid mu di wenn ay dan ba tey min ijtihaadi laasimin ngir bennoog aji war aydan ba tey zahara jot feeñ na wax yi ñoom nag kalaamun moo di kalaam tuma samhun topp samhu wa basarun ak basar juróom-benn yi des dañ boole leen wenn lay mooy samhu ak basar ak kalaam nga génnewaale seeni maanawiya mooy samia ak basir ak mutakallim juróom-benn yi wenn lay lañ leen waxaloon waaye nag wenn lay wa dañ ko tomboon ñeenti tomb wane ne benn tomb mu mooy alquran wax na nu yàlla meloo yett yi ba ca topp di addis ba ko ñetteel di ijmaaxul xolama maanaam boroom xam-xam yi daje ci ne yàlla meloo na melo yi ba ko ñeenteel nag mooy la asamaan si waxoon ne melo yi meloy mat la yàlla mën leen a ñàkk a meloo ndax bu leen meloo rek daal di meloo seeni safaan ndax ñàkk a dégg moom tëx moo fay sës ñàkk a gis gumba moo fay sës ñàkk a wax luu moo fay sës summa qad jaaloo topp def nañu li jaa'isin ñal aji dagan dalilan aw lay waaxidan wa dawen lil naa yal nanu amee bidaa ci lile almaqaasida jublukaay ya mooy sunuy bëgg-bëgg ba tey nee na boo dee seet aljaayis amal na wenn lay doon lii kon boo ko boolee fukki lay lay doon ndax boo nee an nafsiyatu amal na benn lay asalbiyatu juróom lañ waaye teewul amoon nañ juróom benn lay kon mu juróom ñaar almaani ak almanawiya ñu boole leen yaari lay mu juróom-ñeent nga boole ci nag benn lay wa nga xam ne aljaais moo ko moom mu fukk faslun li ab dog la fi rusuli ci yonante yi alayhim yàlla na doole nekk ci ñoom asalaat dolli teral wasalaam ak dolli woolu fal nasrif nanu wëlbati alxawla wax ja ilal axyaari jëme ko ci tànneef ya baada tafaasili sifaatil baar yi ci gannaaw teqale yi melo yi aji bind ji gannaaw nag lépp lu aju woon ci wàllu yàlla ci xeeti melo yi teqal nañ ko teqale bu matamat kon nanu wëlbatiku jëm ci yonante yi tuma lës yi topp la nga xam ne yajibu dana war fi xaqi rusuli ci xaq yonante ya mina sifaati ci ay melo fa talaasu ñett la yaar ju la ñëwwaay alayhi moo yàlla na doole nekk ci ñoom aska salaatillahi gën jaa seeli teral yàlla maxa salaamihi ànd ak doole wóoloom bilaa tanaahi ci ludul daytal li nga xam ne nee na mënta ñàkk ci ku yàlla yónni te ñoom ñëpp ci yem yetti melo rek la ci duxun mooy dëggal amaanatun ak kóolute wa tabliixun ak jottali li ma ñeel la nga xam ne xad umbiroo digaleef na leen ko min ay cheyin ci moomu ci mbir xulima moom xameef na ko ku yàlla yónni ku ne faawu daa war a dëggal te sàmm kóolute te jottali ba mat mu firi la sax ñetti baat ñooñu nga dégg a sidduxu sidduxu xadduxu ab dëgg-dëggam la daal di xubri fa boroom nattu ga mooy fa boroom xàmmee ga ixibaaru saabitin mooy xabaar aji sax bi nafsil amri ci jëmmi mbir ma asidoxo bi ñu firee dëggal mooy wax la am dëgg-dëgg ku yàlla yooni ku ne nag la am dëgg-dëgg rek lay wax waaye du xam du wax mukk lu bokkut ak la am xaddul amaana ci dëgg-dëggi amaana la daaman fa ka nga xam ne xàq xa dëggal na xifdul jawaarihi moo di wattu cër ya jamihan boole seen mutlaxan ak mun man di doon min kulli fi'lin ci jëpp jëf xadd naxaa joj tere na ko rabbu sama borom asamaan xadd kaana moo xam nekk na daa karaaxat ndi borom sib aw xaruma wala mu araam amaan nañ koy fide kóolute waaye mooy ko yàlla yoon yi faaw dana sàmm wóolu gi ko yàlla wóolu mu taxawal ko ci kanam mbindeef yi ba lu yàgg-yàgg du def mukk lu yàlla aaye du def lu araam du def lu ñu sib yàlla ci boppam sax moo koy wattu ba nga xamee du mën a jàdd ba def lu araam mbaa lu ñu sib xaqiqatu tabliix dëgg-dëggi tabliix kul wax kul waxal ne wafa uma mooy matal la nga xam ne umira digleef na bi tabliix yi ci jot li nga lil xalq jëm ci mbindeef yi if xaman na nga dégg dëgg-dëggi tabliix mooy lañ leen digal ñu jot li ko faaw rek ñu jot li ko ba mat sëkk sëkk duñ ca wàññi dara dara duñ ci yokk dara dara kon ku yàlla yónni ku ne rek faaw dëgg rek lay wax te du jàdd mu ko yoon te it faaw mu jot li lañ ko jot li loo wa yastaxilu dana jomb diddu haadihi sifaati safaani yi demeloo fii xaq yim seen aq alayhi moo yàlla na doole nekk ci ñoom aska salaati gën jaa selli dooli teral maa salaamin ànd ak dooli wóolu laa yër yi mu boog du dañ abadan mukk wa kulli man ak képp koo xam ne xadi te daa jube na bi hadiyim seenu jub melo yi nga wax ni mënti ñàkk ci ku yàlla yónni seeni safaan mooy jomb ji ku yàlla yónni ñoom ñëpp nag mu ñaanal leen yàlla saxalal leen teranga ak jàmm ak képp kuy jéem a roy ci ñoom di jubal ay li mu ci namm kasibun fen xiyaanatun ak wor bi fi aliment ci def loo xam ne nuhiya tareef na ko makruhan mbir mu lu ñu sib kul waxal aw muharraman wala mu lu ñu araamal taalis fa aj ñetteel seen kitmaanu cheyin mooy nëbb dara xadd amara lool digle na dul xar ci borom aras ay yubal ni xooxu ci ñu jotandi ko lil besar yi jëm ci mbindeef yi yetti melo yi nga xam ne moo jomb ci ku yàlla yónni mooy fen ak wor kóoluteg yàlla gi ak nëbb dara yett yooyu nag kon mu firi la ko moom itam benn benn xaqiqatul kasi bi dëgg-dëggi fen ixbaarun moo di ak xibaar bi maa ci loo xam ne lam yekku nekkut saabitan di aji sax la daa man faka la daa man faka nga xam ne xalima xam na dëgg-dëgg fen moom weesul rek wax lu bokkut ak la am ku wax lu bokkut ak la am rek dal nay def li ñuy wax fen ku yàlla yoon nag moom la am rek lay wax du wax mukk lu bokkut ak la am amal xiyaanat daal war fa xadduhaa ab dëgg-dëggam xadamu xifzil jawaarihi moo di ñàkk wattu cër ya bi itlaaxin ci ak boyal na xam waaw xiyaana mooy war ko wuteg yàlla gi ba xëtt ndigal def lu yàlla araamal mbaa lu yàlla sib moo tax mu ne ñàkk sàmm cër yi ci anam gu mën di doon rek moo xam ci lu araam la moo xam ci lu sib la loolu moo tudd xiyaana loolu jomb na ci ko yàlla yónnee tarkul wafaa yi bàyyee matale bindee fii ci la nga xam ne xan umri digleef na bi añ yëbbal li xooxu ci njotali ko jaraa daw na kitt maanaan mbir mu dig na bu leen leen jotali loo ñàkk koo jotali mbaa am lañ ca téye bañ koo jotali loolu mooy kitt maan faslu li ab dog la fii maa ci li nga xam ne bay na xaabi yi nekk na diggante yile minal xusoo ci ak jaboo wal xumoomi ako matale melo yi nga wax ci yonante yi bi ñu wax ko soos ak xumoom dafa am seen diggante daañu leeral lu mu ci amee wa bayna haadihi talaasi nekk na diggante yi la yett yaa fataa yow cam si aydan ba tey xosoosun ak jagoo waa xumoomun ako matale sabata boobu sax na yett melo yi nga xam ne moom nga ne mënta ñàkk ci ko yàlla yoon la ne xosoos ak xumoom dafa am seen diggante te moom lay bëgg a leeral amma bayaanuhu ndaal ak leeralam fa an tanzura moo di nga seet min sabaxati awjuhin juróom-ñaari anam fa kulluhaa képp ci ñoom zukki na miineef na ko naqiisat mu di wàññiku fi xàq rusulihi ci àq yonanteem ya alkiraami ña di way tedd alayhi moo yàlla na doolee nekk ci ñoom asgar salaati gën jaa seeli teral wasalaami ak dooli wóolu ni xusuus ak xumoom amee ci diggante yett melo yi mooy mooy da ngay seet ne am na juróom-ñaari anam yoo xam ne wu ca nekk xeetu manki la xeetu matadi la jomb na ci ak yonente juróom-ñaari yooyu dara du ci am mukk ci yonente waaye nag ci boo nettale woon ne juróom-ñaar yi mën naa am ci ku yàlla woon ni dañuy seet nag ba xam ñetti melo mat yi nga xam ne moo mënta ñàkk ci ñoom nu ñuy dàqee juróom-ñaari anam yooyu nga nattale ne xëy na mënta am waaye su mënoon a am nangam ak nangam soo àggee ci benn xeetu manqué boo xam ne ñetti melo mat yépp ñoo dikk ngir dàq ci ko dàq fa tase loolu moo tudd loolu moom boo tuddee nag xeetu matadi xeetu manqué goo xam ne yett yépp du ñëw yetti melo mat ya kay benn ci ñoom ba ñaar waaye yépp du ñëw moom loolu moo tudd xusuus wax ya ñoom ay yi baddiloo mooy ñu weccee leneen xam dañ ci tey kazaliki nii siyaadatun dolli xam dañ ci tey faraax ni nga sàmmoonteeg alma aqafi jàppukaay ba misluhuma siwamtoom la ñoom ñaar ak tabdilu wattee ga sahwan ci njuumte sabata bu saana waxaa kazaliki nii alkitmaan nëbb ga xam dañ ci tey yaa fataa yow as jam siyaadatun ak dolli sahwan ci njuumte kazaliki nii almuxaalafatu jiwante ndigalul yàlla kitmaanuhum ak seenu nëbbu sëxwan ci njuumte bilaa muxaalafatin ci dul benn wutante juróom ñaar yi mooy da ngay wax ne loolu wax loo bu nga ko wàccee waxaat leneen loolu mooy tabdil kooku yaar la ndax mën naa am ci tey mën naa am ci njuumte kon yaara nga ko ba tey lañ leen jot loo bu nga ko jotlee bu nag bokk ci lu ca bokkut yokk boobu tey ñaar la ndax mën naa am yokkub tey mën naa mu yokku juum rek teyuñu ko ba tey kon kooku yaar la muy ñeent ba tey nëbb dañ leen jottiloo bañ koo jottali yaar la ndax mën naa am nëbb ci tey mën naa am nëbb ci ñàkk tey kon juróom benn yaa ngoo ko li nga koy juróom-ñaareel nag mooy këpp ndigal loo xam ne moom mooy def lu yàlla araamal mbaa lu yàlla sib ni ki rey nit mbaa sàcc mbaa naan sàngara juróom-ñaar yi mooy yi nga xam ne jomb na ci yoonante bu ne léegi nag benn boo tudd ci yii te aajowoo yetti melo yépp ñëw maanaam mu aajowoo sidduxu ñëw amaanatu ñëw tableex ñëw kon loolu xumoom nga koy tuddee boo tuddee nag koo xam ne du aajowoo yetti melo yépp di dikk benn rek a dikk dàq ko mbaa yaar loolu moo tudd xusuus moom la bëgg a topp nag waxal la juróom-ñaar yépp benn benn dañu mat wata dafa dana jiñ al ula ku jëkk ga anil axyaari walistànne fii kullun képp mi na salaas yett ya laa tumaari bul werante ki nga jëkk wax moo di ak tabadiilu am dan wàcc la leen yàlla wax la woon weccee ko leneen te tey ko boole ji kooku moom boo nattale woon ne am na dana aajowoo yetti melo yi mat yi yépp yépp dikk ngir dàq ko su boobaa loolu kon xumuum lay doon mu wax la lu tax li ànd tabdilan ngir naka ak wootee jaraagum daw na mahdul kasi bi aji selli fen la mooy fen bu wër cëng la kon min aj li saa ngir lii yadd faxoo dana ko jim si si duxun si duxu yeji boobu dana war ndax nee na bàyyi leen la wax loo wax leen moom foo ko fekk rek aw fen la te fen nag moom ak si duxu moo ko war a dàq moo tax foofu kon si duxu faaw mu ñëw te wa kaw nuxoo nekkam nga it xam dan dig tey xaraamun aji araam la wala saa ngir lii te dafa ma dana ko jiñ amaanatun amaana du dan jàppal zaaka loolee saa yoo xam ne yonante ba wax ga mu wax lu bokk tëg lañ ko wax loo moo ko tey kon loolu lu araam lay doon te lu araam nag amaanatu ma war a ñëw dàq ci ko wa ànd ak bulan ak naka ak wotee isama waqax ndem tàbbi na rek yekkoon day nekk kit maanandi ak nëbbu fa xaalil na nga xaritoog man ka nga xam ne waa watu na xam-xam te nee na kat saa